Cheikh Cissé borom laay nuyu naa la Cheikh nuyoo la gaay ñu avancé tey sama dafa tàng tey. fay naa la danga nga yàq suma tuddi garab gi àndala buri la tudd Abdoulaye dëkk la àndala mooy garab gi nga xam ne góor ñi dem ba ñàkk yaakaar foog ne dañoo paan àndala moo leen di deka dépanner ni leen di dépanner nag mooy yëkkati siddit yi góor war a ittewoo ngir mbiram jóg moom lay yëkkati xam nga ci ñaata fan wala ñaata weer ci ñaari waxtu. garab ci ci deux heures de temps moo tudd àndala buri mais du Abdoulaye buur am mbégte ak kontante teew file waaye di teewaaleel tamit su ma siit bu mag bi la di people 221. Mhm. Eh, ñoo ñëw seet si ma tey xam nga lii dafay wane ne presse Sénégal benn la bu leen neexoon ngeen def ko benn benn mais da ngeen ko boole. loolu loolu jàmm jooju nekk seen diggante yàlla na sax ndax lenn rek moo leen tax a jóg mooy askan wi yëg liy xew waaye seetaan ko askan wi mën a bégee mbégte mii xew. waaye am ci sant yàlla su paree na ngeen ubbi commentaire ku ne am ci xalaatam maa leen di dalal seen kër. saaga saaga kuy wax leen wax leen. waaw ku ne nu sa ndey sëyee sa kër baay rek ngay wane ci penc mi. Cheikh delluwaayu tamit. olof a ko wax géwél ko wéy. <laughs> man la xamal lu ma jaax. xamaguma ko de. quatre vingt dix pour cent des doomu aadama. Mhm. surtout ci góor. Mhm. seen problème yëpp problème mu sexe la sëy. da ngaa miin góor néew daanu. da ngaa miin góor ñi ngir góor nga rek waaye doomu aadama. Mm. bokk na ci teraanga yi ko yàlla teralee mooy katante. Cheikh delluwaay Cheikh Cheikh wadal wax ji. ma ah, en fait waxuñ ci leneen lu mooy katante moo tax ma waxee ko noonu. waaw mais Cheikh da ngay woddu wax ji Cheikh ko su ma ko waree woddu naka laa ko war a waxee. neel sëy rek. sëy mooy katante di ñaari grammaire yu mu ngi mel ni juróom ak five benn la maanaam loolu mënoo ko woddu ba doo ko tudd. mënul nekk. mënoo ko tudd ba doo jaar wala ñu nekk ay complexe def di tuba di wax ko waxi tubaab ñu wax sexe. waa sexe sax au moins kon ay complexe lañu maanaam bokk na ci teraanga yi yàlla terale doomu aadama mooy sexe. waaw <clears throat> dem na ba ci production doomu aadama ci sexe la basé <clears throat> ñett rek ñoo ñëw ci lu dul sex yonent yàlla aadama mi ñu ci suuf. Mm-hmm. Hawa. Mm-hmm. mi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci aadama. Mm-hmm. yonent yàlla. Insa. Insa bi nga xam ne. ci jigéen la génnee. te góor fekkewu ko. lu dul ñett ñii rek. ak loo foor foor loo màgg-màgg wax dëgg yàlla suñ ko waxee ak suñ ko bañee wax ci sexe nga ñëwee. jugal ak koddal du benn buur. lu leen wutale jugal leneen la koddal koy rek la te man ci koy lay wax. seex bàyyi li ngay def yow itam seex. grammaire wolof. Hmm. jugal soo ci tegee ñu dem lan mooy jug nit kay jug. jugal jàppale ma jugal ndàngam waaye boo ne koddal dañu xam ne li nga wax damay préciser ngir mu clair. léegi moo léegi moo éjaculation comme ay complexe la nga xam ne du garaaw. waaw mais sénégalais yi dañuy Cheikh Cissé dafa réew ko et c'est dama réew mais nag suma kër laa réewee suma téléphone laa réewee suma mbiri bopp laa réewee ku xam suma réewange yaa ma fekk suma place mais suma ubbi kër jàmbur wane réewange suma kër suma téléphone suma média ma wane suma réew ba mu saf ki mu neex mu safoo ko ki mu neexoon nga muñ. Cheikh Cissé dem na ba jàpp ni ki ko bëgg ki ko bañ la yemale faalewul kenn ñenn dañ jàpp ni que Cheikh Cissé dafa otin quoi il est otin dafa dafa fuuy ba faalewul kilifa diine faalewul buur faalewul baadoola parce que man buur la dama ko donn ci maam am jikkoy buur kilifa diine la. ndax diine ji maa ngi ciy liggéey. maa ngi ciy def suma wàll te ci li ma nekk la ñëpp nekk jéem a def lu baax def lu bon jéggalu ko yàlla ñun ñëpp ci leen ne y' a pas d'exceptionnel donc man ci li nit ñi la ne li nit ñi doon laa doon yàlla mi teral nit ñi terale leen xam-xam moo ma ko teralee terale leen juddu bu rëy moom ma ko teralee terale leen fulla ak fayda ak xam sa intérêt moom ma ko teralee ci loolu rek laa ne maanaam man euh, li Serigne Wuli Touré waxoon la nit du rëy bët ba koy xoolee rëy ku ma xoolut bët bu rëy suma ma làmbee suma bopp xam naa may kan surtout suma ma benn juge daal laa am mooy suma conscience beneen ba ci tegu mooy euh, Abdoulaye ibnu Abdoul Aziz ibnu Abdoulaye ibnu dama jàng dénkaaneem ca bu mu toogee ci lali bi mu toogee ci lali dafa wax doom ji na ko àddina ak li ci biir buñ dajaloo woon ngir jëriñ la bu neexut yàlla mënuñ laa jëriñ waaye àddina ak li ci biir buñ dajaloo woon ngir lor la bu neexut yàlla mënuñ laa lor ma dajawaat ak beneen sufiyanke kii di ko rey kii di ko dimbale mu taxaw di leen xàqataay ki ko waroon a rey teg fetal bi na ko yow lu xew mu ne dama xam ne yéen ñaar ko ci gën a dof kii war maa rey bu yàlla dogaleen du ma dee mënu ma rey kii di ma dimbale bu yàlla dogalee na tey laay dee mënoo maa dimbale yéen ñaar ngeen di def loo xam ne mënu leen ci dara loolu laay ree donc dimension spirituelle boobu laay nekk tout le temps moo tax nga mën a jàkkaarloo ma saaga ma duma ma saf waaye nga tagg ma duma ma saf mais saa yu ma xee yeewoo man Cheikh Ahmad ñett rek laay toppatoo suma ma ji mooy suma xel mi dinaa fexe ba jàng xam-xam bu ma xamutoon su ma xol bi ala inna zikrillahi bi tatmainul xuloob tudd yàlla dëgëral su ma xol waaye rafetal su ma ruuxu ndax moom mooy dajeeg yàlla lu dul lii su ma yoon nekku ci lu ma waaye wax baax problème ak Adamo jeex na je crois. musuñ am problème. Adamo génn na fi attaqué la. moytuma sinon li ma la xam bon da nga wala da nga jënd glace foofu buggoo xam nga Adamo yi ñemewuñ ko nag. Eh, non non man ak du benn. mais moom da nga jënd glace. yaa ngi jënd glace yàlla na sant yàlla kat tudd naa ko xam nga dama wax ma ne. Hmm. Adamo suñ xoolee mbiram. Hmm. dañ ciy xam yàlla bu baax. ci naka. nit ñi deen daan toog di kattante seen kattante di vidéo seen bopp ci seen cooy si bopp aadamoo di jot vidéo yi su ko jotee mu ne dafay defar weer leen ci pénc ma ku ne mu wala napp la ñëwal wala ma doxanday vidéo bi laaj la weer la gañe ci ay vie gañe ci napp nit ñi émotionnellement xam nga yàlla fan la mujjee ak aadamoo boobu hmm. toog ba benn bés muy live ba nit ñi seetaan ko yàlla na ko simmeekul mu simmee ko nga gis cokkam yooyu noonu mel ni. seex yaa ngi tooli gerte bu booy. seex yaa ngi dugaat ak koyam bu ndaw bu dëng. aadama moom su ma doon jaay régu yi dama koy may ngir kuy wax ci koy war nga am koy bu mët koy jub nooy. dëgër rafet mm. benn ñaareel ba moom nit ñu muy wax ci kat su bàyyam kattutoon ndeyam du juddu. ay donc yooyu daf lay war a permettre nag. nga dem ba xam ne yow doo dara ci société mais nga rek la sa bopp man du man ak Adamo du match. kon li mu la wax déranger wu la. no même pas. sëriñ bi muy deg sa kaw nag. man dama nekkul sëriñ. Mara Niass. non xam nga sëriñ ñett nga ko mën a doonee. Hmm. da nga koy donn wala nga jàng ko wala yàlla may la man ñett yëpp am naa ko su ma yaay ak su ma baay yëpp leen su may maam koo ci laal sëriñ la. si si si ma jàng ba pare yàlla may ma lu ne def naa ko ci mbirum ñaan. maa ko bàyyi siixlu ko xam ne du mécc ma dem uti mécc mécc bi yonantu defoon lay def mooy commerce. nga ne nga ne lan seexlu bàyyi ko ak sëriñ. sëriñ tu niñ koy defee nii ci jamono ji hmm. fen la ndax nit ñi tappale ak dundee ak. te man gor laa waaw mënuma su ma géer su ma géwél tiim ma naan ma Malick Fanta Ndiaye Malick Jalle Ndiaba jëri ma ci wàllu Alsane Samba Yacine di ma tagg fekk li ma koy jox ak nit ñi la loolu rus naa ko mais man ak Adamo bokkuñu dimension personne buy war a wax muy wax waaye koo xam ne. moom li muy dundee. du dafay toog wax xam-xam. du dafay toog wax lu yéeme mënut ta wax ci alxuraan dara dafay xaar ay doomi aadama yu manqué manqué dal. wala ñu topp seen bakkan wala ñu topp seytaane. Euh, def njuumte mu jël ko weer ko ci penc mi. génne seen i taat loolu lay dundee kooku bu waxee ci Cheikh Ahmed fierté la. ba tey xaar na di la saaga saaga yu métti sax tey. non non moom saaga wut ma xam nga saaga lan la. Hmm. mooy nit ki wax la nga interprété ko mu métti la. Mm. mu ngi mel ni tey nga tiim tubaab bu xamul dara naan ko damay doxaan sa ndey day ree du xam li nga wax. xamul li nga wax mais yow boo ko xamee nga interpréter ko si lay doon saaga ku mel ni Adamo munut maa saaga euh, dafay weer boppam rek ah. ndax bi may wax ci moom. comprendre soo sa soo demee Géejawaay info di nga fa fekk benn interview bu yàgg boo xam ne maa ko doon def maa ngi leen di wax ne bés dina ñëw yàlla dina wane ci aadama ne moom mooy buur te doomi aadama den ko war a bàyyi ci boppam buñ ko àtte jox ko yàlla. Mm. bés boobu ma doon wax Géejawaay info en 2020 wala 21 moo toog ba benn bis mu simi kooyam yu ndaw yooyu yu dëng yooyu. wan ko àdduna. <laughs> seex mbiru kàppoot. Mhm. seex dëgër nga fi mhm. ndax boo demee ba ne kàppoot dañ ko war a libéraliser sax di ko dugal ci jumaa yi ak yu mel noonu mu suscité ñu bari ñooy nag seex na kon léegi départ na mooy dof na ndax fi mu teeree wax dof na. dama leen di wax merci rek. seex kàppoot bi ñu ko dugal jumaa yi lu ñu koy doyee seetlu la ko ci biir jumaa yi Hmm, ñu ko wax daal dama leen di wax merci rek. léegi dara jooju nga jox kàpput moom foo ko teg. dinañ ci waxaat. <laughs> Cheikh nee la mën la buur amul dëgg marche arrière la nga waxoon waxaat ko maa ngi nii mbaa nga dëggal say wax. pour suuxat diina ji wala da ñëw pour saboter diina ji moo tax ngay jël protect di ko tëkkale ak li nga xamante ni mooy juma. dina lislaam bi senegal ñi dund ak ñi génn àddina yëpp maag ñoo ma yem ci diina ji yónniwuñu kenn ci ñun. suñ ndey moomuñ diine ji suñ bàyyi moomuñ diine bi den nekk kenn ci jullit ñi li yonent yàlla ibrahima waxoon tawa fa nii musliman loolu la ñuy ñaan yàlla ñu ñëpp dañuy mébét dee doon ay jullit ku ci nekk alquran nga am ak sunnatu rasulillahi sa dégg-dégg mooy sa escalier fa nga yem rek nga mën a yem man diine ji euh, su su dëkkoon kër ma ne suma kër maam la dëkk mais nag dëkkul kër kenn inna akramakum indallahi atqaakum kenn daf ma tenewul ci diine ji du benn xalifa général ci réew mi du benn imam du benn noddukat ndax cër bi maam rek leen am mais bi nga waxee loolu gis na imam yu bari génn di ko ñaawlu est-ce que mën nga jaaraat ci li nga waxoon non du ma ko mën parce que pare wu ma cee wax tey. mais gis nañ imaam yu bari génn balay boole ki nga xamante mooy imaam Matar ci Jamre ñuy def li nga xamante mooy plainte a di di di di distribuer ay yoon daf dut fii daf dut tey. Mhm. loolu laa parewul mhm. te mhm. yi nga xamante ni pare nañ pour indi la ko dama ko yàkkamti su boobaa la nit ñi di xam nga yëkkini nee biñ ko ne bal baabooy tuut mu daan la mu ne bu ma mbër tollaatee fa ma tolloon ñu xam su ma mën a bëri. Cheikh bi ginnaaw bi ñu la nuyoo lan moo tax pare woo pour tontu ci tey keroog bi nga ciy wax hésité lu tax tey ñu la ciy posé question ngay wi. saggante ci wax weesuwul nit wax loola loo bëggut wax. I am not ready to nga wax moom li la neex ngay wax. a ah, retiré tes propos ci li nga xamante ne yëkkati nga ko ba. ku nekk jub ci wax wax joo xam ne yàlla gërëm na ko <laughs> yonantu weddiwu ko. fan nga teg ni yàlla gërëm na ko. loolu laay wax beneen yoon mais du tey. lu tax ngay bàyyi ba beneen yoon. parce que looy gëstujiwaat la wala looy wutiwaat doole la wala lan. non man Sénégal balaa may wax ak ñoom xam naa tontu ba xam naa li ma war a wax ma foyee muy teg ko dëkk bi yëngu ma leeralaat ñu avancé ci leneen mais tey laa ci pare wut a wax. mais gis gis fii Sénégal ak tey boo xëyee ñëpp ñëpp ñëpp di ko ñawlu dama xam sénégalais yi maa ko natt ba mu baax ma dóor ko bon moment laa ko def. Mhm. aadama xam naa li muy wax jàpp mooy say mbir daa doxatul dem nga ci maaraañes doxul dem nga ci Pawlish Mbaye doxul moo tax nga ñëw bëgg ko wéer ci diine ji aadama dama ko bëgg bu bu bàyyam ton yaayam du judd na bàyyi kattante muy wane mhm. dama ko bëgg yéen ñaar lan ngeen jotee non mënuñ jotee du maag aadama dag ma laaj ci moom rek ma wax ko ma wax la mu jeex tet mhm. Cheikh ñaari laaj man laay tëjee benn bi mondial bi la beneen bi mbiri làmb la ndax man lu ma tëgg lu ne man rax ci përëma ah. Cheikh waaw mondial bi coow li bari naa vraiment Sénégal dina sori du sori blessure Sadio maane mu ngi tey Sénégal Saliou Ciss bokkul Mbaye Diagne bokkul atmosphère bi ñuy demee coupe du monde jàpp nga ni dañ mën nañ fa am dara. non Sénégal bu amee match niil dafay mel ni Mourinho bañ ko joxee Manchester mu am deuxième mu ne mooy meilleur résultat am ci football Sénégal bu amee match niil nañ ko jubilé. mu ne. dama ne. waaw mondial bii ñu jëm. waaw équipe nationale bu mag bii di Sénégal bu amee match niil na ko jubilé. ci match de poule yi mu jug. mu dëgg match niil bu mu ci am na ko sibile. xanaa mën nañoo dóor Qatar Cheikh. yaakaaruma sax mu dugal bii. Cheikh wax ji nga wax vaar am na la Cheikh. non yaakaaruma nit laa koy yaakaar néew ma yàlla lii la ma wan néew ma lii laa gis su ma yaakaar laay waxee. yaakaar foo ko teg. ci xam football. xam ne moral yi équipe bi dafa daanu ba zéro. lu dam moral équipe bi départ Matar Ba. ay wax yu sew ci biir no Matar Ba moom su sañoon Sénégal jël coupe du monde baax la. Hmm. tax mu yéene Sénégal lu bon kon baaxul te mataan ni ku baax la mais moralu équipe bi moo doon premier point fort équipe bi moral bee damm. parce que feeñ na Sénégal ay heure bii. parce que dafa am défenseur boo xam ne dafa am boo xam ne xamul dara. Mm-hmm. jour nawetaan la topp nit ñi di liggéey rek ci équipe bi. ak milieu terrain boo xam ne amu fa place di liggéey nit ñi di. wut seen muy kan ak kan Cheikh. xam nañ yenn wax yi doo ko leer déedéet ban défenseur mooy liggéey gars yi ak. da ngeen di xoolante rek ku fa mérité wut place moom la ambiance ak football du benn mënuñ gàllankoor te nga maa dimbali seex lan la bëgg wax kan la bëgg a waxal. Pablo Cissé waa kay waa doo jaar digg bi. nga ne Pablo Cissé day liggéey gaa yi pour football. mi lay tere wax du Gana. kan la. xam naa ne milieu terrain la daal buy laccax laccax ci digg bi mënul dara. waaye du. Cheikh Kouyaté la borom ñaari jéegi booy. xale xam naa ne daal ñaari ñaari joueur benn milieu ak ñu ngi yàq équipe bi ñu ngi liggéey nit ñi rek Cheikh waaw waaw ñoom defoon dëgg la. non su fekkee ne kay dañuy liggéey nit ba ko du monde ñëw baax na neen ko def mais Sénégal gii ma gis nii yàlla na gagné yal na am ndam mais match nil sa yaakaaruma ko benn bii yaakaaruma ko pour Sénégal. Cheikh ñu tëjee ci làmb Balla Gaye de Boy Balla Gaye moo koy daan. ah waxi mbër la de. bul xalaat bul weerante bul laajte Balla da koy daan point. Cheikh fan nga teg loolu. fu ma ko teg waaw. gis nga signature moo boole Balla Gaye hmm. ak Boy Niang mais buñ tase woon guddi Balla na ko toogal Boy Niang du buusi da koo mën dax ko bëri ëpp ko caay-caay yu bëri. yow Boy Niang sëpp fi Balla Gaye Balla Gaye daw ko xaalis ëpp ko ngemb ëpp ko supporter te bal Boy Niang li muy wax ne day attaqué Balla une la ko may waxu dëgg du ko def. déet Boy Niang gër cappaaculi la bi man ne sa mbokk la. waaw na ko teg naa 3 bu attaqué Balla Gaye une minute mu jël. man ne ko Cheikh Cissé teg na 3 millions. 3 millions te fenn bañ na seede du ko def. bu jegee ma jox la exclusivité bi univers wax la nan la koy daanee parce que xam-xam ak làmbatu du benn. ñoom ñaar ku jàpp galaaj. Balla Gaye moo ko ëpp lépp bul bul dëkkat bul détail. mais Balla dafa door a commencé li ko dal mooy li dal Eumeu Sène teel a bëri teel a jël roi des arènes mais Balla commencé ko ci làmb Balla war na mën a bëriwaat 30 combats. Chelsea arrêté yow tamit nag. sérieusement benn année bu ne mënu ca bëre cinq fois neen ko fay lu ko jar. la mën na bëriwaat yeneen 30 combats du daanu lu mat cinq ndax jom jee bëri. waaye boo ñaa amul benn chance ci kanam Balla Gaye. no non non xanaa tardel combat bi ak làqatoo ak daw su paree soo nga xam nga boo bëggee nii da koy daan de yambar la. Cheikh Cissé jërëjëf. Euh, bala ngaa tëj ci euh, divorce yi bari na loolu gis nañ fi Mia boo xam ne bi nekkoon ci couple Mabo euh, nee na tas na ñetti yoon dem nañ gendarmerie ñetti yoon ci seen divorce bi. ndeysaan waaw. Mia doo leen ma ko jotalil su ma mbëggeel ci moom comme làmm naa feneen mu métti jox leen ma Mia. yow xanaa non man intérêt rek xanaa sa xol da nga ko coadri. non non nobante ma de intérêt jigéen ju ma amal intérêt ma ñëw takk. ci lii lay dox man. léegi ñu ñëw d'abord ci seen. man yonentu rek laa bi bala ngaa wax cofeel ci moom. suma point de vue ci divorce bi mooy c'est normal ah. yàlla tas la njëkk a daganal door a takk takk sëy xam nga ñaar ñu bëggante di wéy dem bay dem gendarmerie y a des bu demee ba fitna war a am taxale ko leen ci jàmm loolu la alxuraan wax loolu du maanaam du susi Murtani gii ñu nekk dañuy bàkkoo tas da ngay tas ñu tëgg xew ne tas na ñu ngorowaat la nga tas sa bàjjan bu lay yedd dala naan tas naa 18 fois mais Sénégal pourquoi ñu jël farata def ko jël tas def ko def ko gàcce tas du gàcce xam nga lan mooy gàcc ñu may la jigéen ngay dóor a ko toroxal ba mbokkam yi nangu ko lan mooy gàcce ñu may la góor mu amee la nga nekk këram anam bu rafetul bañ fase la mais sëy day tas te fekk kenn deful toor mais yàlla moo ko jeexal li suñu problème mooy ñoom il il montré le bon exemple le couple je veux dire le couple parfait lañ doon wane kenn xaarul woon ci ñoom divorce loolu am seen diggante. musul nekk couple est-ce que lu showbiz mooy problème. non musul nekk couple parfait. bul fàtte ne lañ daan wan nit ñi lu ñu programmé la mu mel ni man dama solu sol suma mbaxana sañse toog pour interview. lii may wax su caméra yi fay beneen façon ngi wax laa am. donc loolu dañ ko daan pare bind seen woy tëgg ko loolu loolu du couple couple heure doo ko gis ci image mais da nga koy yëg ca xol. noonu la mbir yi demee. <laughs> lan mooy détention arbitraire. maanaam nguur gi moo deful dëgg loolu nga bëgg wax su ma déggee laajte bi pour ma tontu. d' mais am na ñuy wax ne Pape fenkat la tam comme ni ñu waxee ne nguur gi deful dëgg loolooy opinion sénégalais donc am na ñuy wax ne rambaaj la jaxasekat la danger public la gënul ci réew mi te responsabilité Macky Sall la nag mooy sàmm réew mi ñi dëkkee réew mi ak seen alal donc nit koo xam ne saa yu yëkkatee kàddu ñetti objectif la am. mooy neen gëm ne opposition bi ñoo baax neen gëm ne nguur gi baaxul mu fexe nguur gi ak ñi jiite ñu am musiba di joxe ay rumeur dans deux semaines ñu ñëw décortiquer kak dafay fen lii du dëgg ak journalisme nu mu nekkee métier bu noobul journaliste ni mu war a doonee bon exemplaire parce que démocratie ci àddina mënut dem sans journaliste léegi doo am honnêteté jéggalu askan wi ku mel noonu dëgg-dëgg boole ci màndi boole ci amul melokaan waaw man de wax dëgg yàlla dama ko gis maa ngi koy seedaloo yàlla billaahi wallaahi tallaahi su ma diggante ak yàlla su ma bët nii ak jëmm ji mu naan ba màndi ba tërëf di daanu lii moom maa ko gis waxuma dama ko dégg liiruma ko fen soo jógee ko radison yoon bi nga xam ne mooy yéeg balaa ngay dugg ci pont bi pour jàdd sa duraat boo ñëwaatee door a jotaat yoon bu dem faan ak yooyu foofu la woon li moom wax dëgg yàlla maa ko gis ku mel noonu nag su munee indi danger publique parce que am na image am na popularité donc dañ koy jàpp teg ko benn place yar ko ndax bul fàttee na kaso gi ci réew mi la bokk ah euh, lacrymogène yi ci réew mi la bokk fetal ci réew mi la bokk yëpp situation lay régler rek waaye en tout cas wax loolu ci Pape Alé Niang defut ma ignorant ma réeree importance journaliste defut ma it ignorant ma xam ne am na ay journalistes yoo xam ne siwuñ mais ñu ngi def liggéey bu extraordinaire ci ay effort ba seen organe de bi leen jël sax du leen di jox paas ñoom ñooy paasal seen bopp gis ay caméraman yuy gàddu caméra di daw ci àdduna wërngal képp maa ngi rafetlu liggéey journaliste yi mais nag ñoom tamit war nañoo dajaloo seen biir journaliste bu fen ñu yar la ku rambaa ñu yar la ku def luy yàq réew ñu ral mais pas da ngay défendre parce que journaliste la su boobaa ñoom tam nit ñu bon leen te journalisme dafa am importance ci démocratie. non not man yow yaa ne non xaar xaar yow yaa ne non dama lay leeralal danga nga juum non dina la may nga daane mais foog di nga daane mais foog ma leeralal bala ngay avancer pour nga avancer yow yaa ne ñenn ñi dañu jàpp ne nguur gi den ko tooñ ma ne la ñenn ñi dañu jàppale mais pas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 72 96 96 wala nga def 77 285 38 38.